الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على عبد الله ونبيه محمد واله وصحابته اجمعين يسنتي الله سبحانه وتعالى ديكو غرم تي بيب انام ديكو ديمبليكو ديكو جيغلو دي جولي سي ننتم بو تيد بي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم غناو لولو مبكي جولي جي نيغي سي جامونا بو بري فتنه fitna yaa ngi tegaloo rek daanaka depuis ay at a ngi nii duñu génn ci fitna bu dikkee ñu ne bu léegi mu jeex bala muy jeex beneen agsi fitnaay nit keeg boppam fitnaay biir këram alalam ak njabootam fitnaay gox bi mu dëkk fitnaay bërëb bi muy liggéeyee fitnaay réew ma mu nekk fitnaay jamono ji mu tollool waaye nanu xam ne fitna fileeg laalul diine rekk mën naa doon lu ñu ne garaawul waaye bu laalee diine laal gëm-gëm foofu la danger bi nekk moo tax ku ne war a wattu ni muy sàmmee yaramam di ko sàmmee alalam di ko sàmmee njabootam na ko di sàmmee diineem mbaa nu ko raw bu mënul nu ko raw sax ni nuy sàmmee alal jeeg njaboot geeg lanu moom bu nu ko sàmmee woon diine rekk mu baax ñu mucc te xam ne fitna yii ay tóor tóor la rek lépp dañuy tóortóoral fitnaay masiixu dajjal mi nga xam ne yun ci bi sallallahu nee na bi yàlla sàkkee aadama ba keroog bis penc di taxaw fitna jaarul ci kaw suuf si te du fi jaar boo xam ne rek toll na ne màgg na ne fitnaay masiixu dajjal ndax moom fitnaay diine la ndax bu dee alal da koy indaale bu dee rey du rey kenn lu dul benn bakkan waaye diine lay wut moom diine lay addu kalpe yonent bi sallallahu amul fitna juy xew nag lu dul moom lay laltaayal xamal nañu ne ku mucc ci fitna yi ko jiitu mucc ci fitnay masiixu dajjal ba tax ñu war di ko fàttaliku di ko bàyyi xel di ko toqal ci noppu njaboot gi ndax xamuñ ñun ñooy fekke xamuñu njaboot gay fekke te lu la bett man la ba tax mu bokk ci gën a raglu ci jamono bii ñu toll réere gi ko nit ñi réere mbir ak bàyyi gi imaam yi bàyyi di ko tudd ci kaw min bari yi kenn ci saxaaba yi ku ñu wax saabi Saab ibnu Juthaama nee na ndax dañu xeexoon benn xare am ñu tëb naan eh dajal génn na génn na moom gëmu ko ndox boobu saxaaba yaa ngi des te boobu nit ñi fàttewuñ ko te ñu ngi koy tudd ci kaw min bari yi mu ne leen wax leen lu leen neex de waaye man maa dégg yonent bi wax ne waaju du génn moomu dajal kooko du génn fileek nit ñi fàttewuñu ko ilimaan yi bàyyi ko tudd ci kaw min bari yi maanaam fi ak imaam yaa ngi koy tudd ci kaw min bari yi nit ñi xam ko du génn kon li ngeen di wax man dugguma ndax booba nit ñaa ngi ko xam imaam yaa ngi koy tudd ci kaw minbar yi nga tax magi lislaam yi doon yitte woo di ko waxtaane lool di dajale xadiis yi ci ñëw di ko jàngale ba kenn ci ñoom nee na xadiisu Nawaas ibnu Samaan bu gudd boobee nee na dañ ko war a jox kii jàngal xale yi bu doon lii jaar yoon jaar na yoon dañuy wax primaire xale yi dañ ko war a jàng dañ ko war a jàng waaye nag metti na ay léeba ki léppoon ak ki caaxaan moom mënees na koo jàngal xale yi waaye li nga xam ni moo ñor dëgg dëgg dëgg tax leen fi indi ak waajal seen bopp ak fa ñu jëm jullit mooy am fulla di ko jàng di ko jàngal jabootam nee na ndax ñu koy jàngal xale yi ndax ñu màggaale ko mu bañ leen a bett loolu nag mi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi bal ci mbooleem yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul yonent bu yàlla ma sa yónni loolul rek doon na xupp xeetam wi ci fitnaay waa jooju ak musiba boobu di dajjal nee nag yéen yéenay xeet bi mujj te man maa yonent bi mujj man maa yonent bi mujj yéenay xeet yu mujj kon ci seen biir lay génne ci xeet bii lay génnee ndax yonent yi xaar nañu ko moytuloo ko seen xeet yi te génnul te man maa yonent bi mujj yéenay xeet bi mujj kon ci seen biir yéen ñii la nar a génne saxaaba yi dañ ko doon xaar lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen ci daan waxtaanal ba ñu foog ne mi ngi ci ginnaaw garabu tàndarma yi di agsi ndax tiit ba bés nettali na leen ci di ci wax di ci yëkkatee ko wàcce nee na ba ñun ñu tiit jàpp ne mi ngi ci ginnaaw garabu tàndarma yi di agsi ci ñun ginnaaw toolu tàndarma yi ñu dellu si ci moom mu gis loolu ci suñu kanam daal di ñuy laaj ñu ne ko ah yow day sànq da nga ñoo waxtaanee dajal da nga cee waxtaan yëkkati ci wàcce ci ba ñu foog ne mi ngi ci ginnaaw toolu tàndarma yi di agsi suñu kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen leneen lu dul dajjal laa leen gën a ragalal may fitna yi koy jiitu fitna yi koy jiitu la gën a ragal ndax dafa am nu mu lay fekkee sa xol nàmp fitnaay jamono mu yóbbu la am na nu mu lay fekkee sa xol rejeté fitnaay jamono mu bala fa ak sa ngëm nee na bu génnee fekk maa ngi fi man maay taxaw dàggeek moom ci seen kanam bu génnee fekk newuma fi ah kenn ku nekk nag bu boobaa yaay dàggeel sa bopp yàlla nag moo ma wuutu ci kaw jullit bu ne la ngay dàggee nag war nga koo xam la ngay mën a discuter di ko tontoo li ñëw pour sànq la war nga koo xam mais su fekkee ne moom balaa moo ñëw réer gi mu lay woo réeroon nga ko ba noppi kon yow pare nga pour mu yóbbu la safara fekkee moom balaa moo ñëw réer gi muy woote gëmoon nga ko te gisagoo sax lu tolloog moom li muy indi ci ay xarbaax am na koo jàpp ne moom yàlla la wala mooy borom kun fayakun wala moom war nañ koo ñaan wala di ko jaamu foo jëm bu ñëwee yéen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa tuddal nañu mbiram yépp ba melokaanu jëmm jaak yaram ba ne am patt la ab arke la dafa rinki karaw gi dafa sëq ne jëy ca kaw yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu li mu fiy def ci kaw suuf si ñeen fukki fan bés bu njëkk bi comme at bés bu ca tegu comme weer beneen bés ba ca tegu comme ajjuma ba ajjuma beneen bés ba ca tegu nee na comme ay étincelle ay ferñeent ndax gaaw ndax bés yi axiri zaman day gaaw comme ni ñu koy dundee suñu jamono jii tey ñépp di ko wax day dem di gën a gaaw ñu laaj ko waaw moom gaawaayam ci kaw suuf dañ ko njëkk laaj sax waaw bis bi nga xam ne day mel ni at nu ñuy def ak suñu julli mu ne da ngeen di natt rek diggante waxtook waxtu diggante julli ak julli la fa daan nekk ci waxtu rek bu jotee rek ngeen julli waaw nu muy gaawee ci kaw suuf mu ne day mel ni taw moo xam ne ngelaw daf koo ginnaawu di ko buux ni muy gaawee ngay dégg taw mu fële muy riir bala ngaa daw egg sa kër mu jiitu la fa noonu lay gaawee ci kaw suuf dana teg tànkam fépp ci kaw suuf ba mu des màkk ak Madina ak Baytul Maqdis foofu la dul mën a teg tànkam yonent bi sallallahu tuddal nañu fitnaam ne na bokk na ci fitnaam ne day yore àjjanaam ak safaraam ku ko topp mu dugal la ci àjjana ja ku ko weddi mu dugal la ci safaraam waaye nee na nag képp ku yàlla na too safara sa ndax sa ngëm nee na na nga ca dugg te gëmm rek naan ndox mu sedd nga koy fekkee ñëw na ci it mu wax ne nga jàng ay njëkk ci fukki ay njëkk ci suratul kaf bokk na ci fitnaam ne day romb aw nit ne leen may seen borom gëm leen ma ñooñu weddi ko mu ne asamaan téyel sa ndox suuf téyel sa gàncax ñoo ñu nekk ci bekkoor ak maral bu metti seen alal yépp dee seen jur gi yépp ay dee laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi ci at yu metti yooyu ak yi koy jiitu lu ñuy dundee mu ne ñi gëm yàlla subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar la ñuy dundee mooy daw ci ñoom palaasu lekk ak naan yàlla du ñu bàyyi ñun ñooy bàyyi suñu bopp ñun ñooy bàyyi yàlla waaye yàlla du ñu bàyyi munu ko jëlee fi yàlla ci kaw suuf maanaam gëm yàlla ak diine yàlla ji ak i jaami yàlla yuy jaamu yàlla te duñ ko bokkaaleek dara mënu ko keneen mënu ko nee na mu romb dëkk ne leen gëm leen ma maay seen boroom ñooñu ne ko gëm nañ la yaay sunu borom mu ne asamaan tawal asamaan di taw suuf génneel sa gàncax suuf di génne gàncaxam nee na seen jur ga xëyoon sax ba ñuy xëy boobu ñu ngi lompoñ ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yooy bu ñuy dellu si dañuy fees dell giléem ya seen cëggal ya fees dell ak gerees nee na seen wet ya fees dell seen ween yi fees dell xar yéeg ba yéeg nag yi ndax gëm nañu ko yàlla di nattu di xool te ku ko topp dem safara nag yàlla di nattu di xool ñi gëm ak ñi gëmul ne na bokk na ci fitnaam alal da koy topp day romb kër gu ràpp gu amul dara ne ko génneel ma sa trésor yi nee na nga gis trésoru or wurus di ko topp ay trésoru wurus comme ni ay yamb di toppee seen njiit mu jiitu ñu topp ci noonu lañu koy toppee ku alal doxoon sa diggante ak sa boroom dox sa digganteeg sa diine xaw foo jëm bokk na ci fitnaam nee na jigéen ñi ñoo ëpp ñu koy topp jigéen ñi ëpp ñu koy topp ba nit dina dem jàpp yaayam yeew jàpp doomam bu jigéen yeew jàpp soxnaam yeew jàpp sëram yeew jàpp bàjjanam ak tàntaam yeew ndax rek ni jigéen ñi di dawee ci ginnaawam di ko topp ci saasam nee na bokk na ci fitnaam ne dina ñëw ci ab kaw-kaw ne ko waaw ndax su ma la dekkalee sa ndey ak sa baay ndax di nga ma gëm ne ko waaw mu ñëw ba ci bàmmeelu ndey jeeg baay ji fëgg leen ne leen jóg leen nee na ñaari jinne ci seytaanam yi ci soldaaram yi soppaliku kii jël jëmm ndey ji kii jël jëmm baay bi jóg ne ko doom toppal mooy sa borom waaw ku jàppee woon nit yàlla te mosuloo gis mu dekkal kenn yow bu kooku ñëwee foo jëm fooy muccee yow dèjà yaa ngi am ay nit yoo xam ne yaa ngi gëm ci ñoom leesu warul gëm lu dul ci yàlla yow pare nga bu ñëwoon taseeg yow dekkalal la ngay gis asamaan tawal muy taw suuf génneel muy génne foo jëm ndax nit day waajal boppam ci gëm yàlla kennal yàlla xam yàlla xamne ne yalla ludul yalla nen la kudul yalla mbindef nga da ngay bax kay ci jami wala nga bon lolo fi nek ñi bax gërënti am ñu ci ay yonent am ci ay waliyu waye di ay jam. yo xam ne mënaluñ seen bop dar ba diko ko mënal keneen yoraluñ seen bop dar ci àllaaxira ba diko ko yoral keneen kay lolo ngay dundu bu ñëwé fekk la fofu nga wo koŋ du la fenn ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu fa muy mujj ne benn waaye ci jullit yi day jóg ne na ca waa Madina lay bokk ci ñi gën ci waay gëm yi lay bokk ci bés boobu nee na daal di ne man daal waa ji dama koy fekki ji nee na taseeg soldaar yi masix dajjal yi ñu jàpp ko foo jëm mu ne ci ki feeñ fii lay jëm xanaa da ngaa gëmul sunu borom mu ne sunu borom ñun nëbbuwul ci ñun xam nanu ko ñu tëral ko bëgg koo rey kenn ca ñoom wala ñenn ca ñoom ñooñu ca des waaw xanaa sunu borom waxul woon ne bu leen rey kenn te indiwu leen ko ci moom ñu yóbbu ko ca masiixu dajjal yóbbu ko ca waaja waa ji ko gisee ne ko ndax gëm nga ma maay sa borom mu ne ko déet yow yaay fenkat bu rëy wi yonent bi waxoon te pat yowa bi mu ñu doon natt bi mu doon nettal diñ ko moytuloo yow mii la mu ne tàllal leen ko ñu tàllal ko mu feesal biir beeg ginnaaw gi ay dóor bayram bi daggatoo teg ko ne ko ndax gëm nga ne ko tay la la gëna a mu daal di koy jël teg ko dóor ko jaasi ci digg bopp bi ba xar ko ñaar borom kattan la moom dajjal borom doole la dóor ko xar ko ñaar benn genn wàll dem nii beneen genn wàll gi dem nee mu dox ci diggante ñaari xar yi dellu si naan xool leen sama jaam bi dama koy rey dekkal ko mu may weddi ne ko jugal yàlla dajale waa ji mu jóg jóg di ree di jëm si ci dajjal xam nga gën nga ma léegi mu ne ko léegi laa gën a am ci yow gis-gis bu wér li yëpp yonent bi waxoon na ko daal di yëkkati loxoom ne nit ñi bu leen ragalati bu leen tiit lii dootu ko defati kenn ndax yonent bi wax na ne yàlla du ko may kàttan ci mu rey benn bakkan lu dul benn kese te def na ma ko jeex na bu leen tiit jàpp leen seen diine mu mer nag tëral ko bëgg koo rendi sunu boroom def diggante baat bi ba fii mu def ko përëm mu xiit xiit ba sonn du ko mënal dara mu jàpp ci loxo yeeg tànk yi sànni ci safaraam sa yent bi nee na mu foog ne ci safara sam la ko sànni fekk àjjana la ko sànni nee na kooku moom mooy ki gën a dee ci yoonu yàlla shahada ci jullit yi muy mujje nag dem daal di encercler jullit yi ca Jérusalem gis nga Palestine bii ñu nangu nii ak la ko wër ci loxo jullit yi lay mujj nanu muñ rek te jaar ci yoon wi ñu war a jaar dañuy egg dañuy egg li ci des yëpp pëpp la rek dañuy egg ndax Mahdi ni yonent bi gàddaaye woon jóge Màkka dem Madina ak jullit yi noonu la Mahdi di màkk di gàddaaye jóge Madina jëm Màkka jóge Màkka dem Jérusalem foofu mooy gàddaayu jullit yi ci axiru zaman moo leen jiite mu ngi leen jiite julli suba ni ñuy defaree sàppe yi rek yàlla wàccee isa bnu mariam isa bnu mariam buy ñëwaat du génn ci ëmb ak biir asamaan lay jóge ca penku dimashq yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ngi sol ñaari complet yu xaw a xonq am yi tere nee na jël ay ñaari loxoom teg ci ñaari laafu malaaka ñuy wàcceek moom ndànk nee kanam gi leer na dund na set na setaay goo xam ne bu sëggee mu toq ndox toq ndax ni kanam gi dundee bu siggee toq-toq yi tag ci jébi nee na comme ay doomi or yuy melax wala jama yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu wàccee fekk mahdi mu ngi defar sàppe yi ñuy waaj a julli suba mahdi day dellu ginnaaw al imaamul mahdi yu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa neena nee na muhammad lay tudd turam day tombeek sama tur turu baayam tombeek sama turu baay muhammad ibnu abdillah lay tudd ca waa madina lay jóge nee na di dellu ginnaaw ndax gis na yonent nee na isa ibnu maryam jël ñaari loxoom teg ci mbaggam yi delloo ko palaasam ne ko taxawal nga jiite jullit ndax kat xeet wi yàlla da na terale ne seen imaam ci seen biir lay génne te man bokk ma ci xeet wi mahdi jiite jullit ya te isa ibnu mariam julli ca ginnaawam bu noppee laaj leen anawaa waa ji leen encercler fii ñu ne ko mu nga ca ginnaaw mu wëlbatiku jëm ca moom di ko dàq muy seey ndax moom isa ibnu mariam yéeféer bu jot noy yeem rek da ngay dee bu koy dàq muy seey bu koy dàq muy seey ba fekk ko fu ñuy wax baabu ludda cépp Palestine foofu la koy rey jam ko xeet génne xeet bi yëkkati ko ci kaw wane deret ji ni ko yàlla dogal na ne am na jam boo xam ni man maa la koy jam te ci ngay dee jàmm ne ñooy ay sabnu Mariam keroog dana toog ak ay jullit di raay seen kanam yi di leen fomp di leen dëfal di leen wax seen kër ca àjjana ndax mbokki jullit yi nañu muñ te jàpp ci li ñeen ci àl bi sallallahu alayhi wasallam wax ne buñ ca jàppee danañ mucc bokk na ci mucc ci fitna yi nga xam ne ñoo ko jiitu yonent bi su alayhi wasallam nee na képp ku mucc ci fitna yi jiitu fitnaay masiixu dajjal mooy fitnaay jamono yàqu-yàqu jamono di nga mucc ci dajjal fitnaay pas-pas gëm-gëm looy gëm ak loo dul gëm fitnaay bànneexu bakkan képp ku ca mucc di nga mucc ci bu dajjal loolu benn la ñaareel bi bokk na ci dëkkee Makka ak Madina fekk nga gëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na foofu du fa teg tànk waaye dina ñëw ba ca benn sabxa benn tan mooy suuf su saf xorom ca frontière Madina jël tànkam daal di koy dëgg nee na naafiq bu nekk màkk wala bu nekk Madina da génn ñëw wuy ko muy bu góor ba ak bu jigéen ba kon dëkkee màkk ak Madina ak imaan bokk na ca la lay sàmm ak ngëm naka noonu it di ñaan yàlla mu musal la ci yonent bi sallallahu alayhi wa daan na bu taayaa ba pare ci dernière taaya bi ba julli ci yonent bi daan ñaan ñaal yàlla ñeenti mbir yoo xam ne daan ñaan yàlla musal ko ci fitnaay masiixu dajjal mu nga ca alimaam ahmad rahimahullahu taala bis fekk na doom ji mu julli ba pare abdallah mu ne ko ndax ñaan nga yàlla mu musal la ca ñeent yooyee mu ne ko déedéet jotuma ko def mu ne ko demal julliwaat moo tax am ñu jàpp ne moom daf ko jàppee farata allahuma inni audu bika min adabi jahannam wa min adabi alqabr wa min fitnati almasih dajjal من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال نكا نونيت موكل فكي آي نجك سورة الكهف ينتبه صلى الله عليه وسلم كيبكو موكل فكي آي نجك سورة الكهف يلا مسلة الدجال نيان يالله سبحانه وتعالى مسامو ني سامو سونو دين سامو سونو گم گم نيان يالله مو ديفال ني اي ادي كينال يالله يو خامن دون كو بوكال اك دارا lu yonent yonent yonent lu wàlli yu baax baax baax ñu xam ne wàlli yu la ku baax la ñu bëgg ko te yàlla tax di roy yoonam te yàlla tax waaye nag bu ñuy waat ci yàlla dong la ñuy waatee bu ñuy jébbalu ci yàlla dong la ñuy jébbalu bu ñuy jaamu yàlla dong la ñuy jaamu bu ñuy yaakaar yàlla dong la ñuy yaakaar bu ñu jàqee yàlla dong la ñuy tàllal suñu loxo di ko ñaan gëm ne wàlli yu booba mbaaxam moom mooy jiitu nañu àjjana mbaaxam mooy gën nañoo baax waaye nag mbiri faj aajo yee doxal mbir yi moomu ca dara nag moom a ci yem loolooy tawxiid loolu mooy ngëm yal nañ sunu borom subhanahu wa taala féetale foofa musal ñu ci bokkaale musal ñu ci tabbi ci lu ñuy nax ci suñu diine musal ñu ci topp bànneexu bakkan ba dégg dëgg bañ koo nangu yal nañ ci yàlla sunu borom subhanahu wa musal yal nañu yàlla musal ci par parloo moom mooy yàq ñi mujj ci askan wi moo leen alag parparloo lii daal dégg la waaye neexuma lii daal dëgg la waaye farul fa ma far lii daal dëgg la waaye man daf may critiquer loola moom mooy alak ñu ñëw ci mujjug jamono waaye ñi ñëwoon nekkoon ca bu njëkk jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu mën a jàpp mbaa seeni maam jàpp ko mbaa ñu tàmmoon ko mbaa ñu miin ko bu aaya ñëwee bu xadis ñëwee bu dëgg ñëwee ñu topp xadis topp aaya topp dëgg te bàyyi loola looloo taxoon ñu doon nit ñi gën ci nit ñi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmm ñu sàmm suñu diine sàmm suñu pas-pas sàmm suñu àdduna sàmm suñu alaxira allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walcafafa walghina allahuma inna nacuudu bika an nushrika bika shay'an wa nahnu naclam wa nastaghfiruka lima la naclam اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة wa nasaluka ونسألك rahmatik wa وعزائم maghfiratik ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد